man toujours dama habitude di wax bu ne dee ay sach wala yi nekk ci courant ci cœur ni ah man sama cœur dama naan couper leen courant bi. ci disjoncteur bi yon sax. parce que bang ngi bi ni xalé dafa am sam benn mak bo xamni ci yu mel non la bakaram dese woon. liggéey boo wàcc plombier la. waa kër gi xamni sache bi amna courant mais dañ ko wax pour mu dimbali leen pour mu am ndox c'est-à-dire mu comme lool mo nek métier

bu doon tey nii nii ak nouvelle technologie bi ak xale yi ni ñu màggi nii ak communes yi nii nii nii sa mbokk deewee ci condition yooyu sama ay di nga di nga di am yeneen démarche yoo yoo kii ko alaaji boo sa doom demee hôpital ñu gis ay gaañ-gaañ yu metti fajkat yi bu ñu suspecté ne xale bi dañ koy maltraité dañuy alerter police wala gendarmerie saa ñu wax la ko mhm. Mhm. alaaji boo amee avortement nga dem léegi ci benn maternité bu mënti doon dañu lay enquête ba xam am nga borom kër wala amoo borom kër su nekkee amoo borom kër automatiquement dañuy alerter pour xool lan moo dindi grossesse dañ waxante dëgg rek hmm. genre accident yii bu amee nit ñëw faju yow médecin ba war ko mën a poser question poser ko question mënta ñàkk lan moo def lakk yii léegi wax na yow kay yow yow ci boobu li nga war a njëkk def mooy avant moom muy génn ci situation bi mu ne ndax moment boobu xam naa ne ay ordonnance ak yeneen dina ko doy soxla mm-hmm. yow yaa war a alerter. Mhm. ni am na kër gu nekk temps ci Saint-Louis. Mhm. kër googu dafa am courant haute tension bu fay gaañ ay nit. Mhm. loolu nag loolu nag buñ ko waxee ay ay ay policier wala gendarme comme ci mënti doon. bu nekkee protéger askan wi rek moo leen tax a jóg ak say bien comme ni ñu koy waxee. dinañ fa dem protéger askan wi ak suñuy bien du nee nañ looloo leen tax a jóg. dañoo war a dem ba ca kër googu laajte. courant haute tension bi lu ko waral. ñaata victime la fi def. est-ce que moom ba muy liggéey xamoon nañ ne. xamoon nañ ne courant bi mi ngi fi lu tax waxuñu ko ko mais borom kër gi lii nii warta dal waa jii borom kër gi di dox ay soxlaam ni. mu ko neexee.